peñu ma saar noonu ma gis meneen malaaka mu am doole muy wàcc asamaan làmboo niir xontim ko te xar kanamam mel ni jant te ay tànkam mel ni jumi safara yor na benn téere bu ndaw bu ñu ubbi mu teg tànku ndejooram ci géej gi tànku càmmoñam ci suuf si di xaacu mel ni gaynde guy yëmu naka la xaacu juróom ñaari dënn yi jib naka la juróom ñaari dënn yi di jib may waaj a bind waaye ma dégg baat bu jóge asamaan naan ma li juróom ñaari dënn yi wax na nekk kumpa bu ko bind noonu malaaka ma ma gis mu taxaw ci géej gi ak suuf si yëkkati loxol ndejooram mu jëm asamaan daldi waat ci kiy dund ba faw ki sàkk asamaan ak suuf ak géej ak li ci nekk lépp mu ne néggandiku wees na waaye jamono ju juróom ñaareelu malaaka ma wole ci liitam ndogolu yàlla dina mat ni mu ko waxe woon ay jaamam yonent yi ci kaw loolu baat ba ma déggoon ci asamaan waxaat ak man ne ma demal jël téere bi ñu ubbi ci loxoob malaaka mi taxaw ci géej gi ak suuf si ma dem ca malaaka ma laaj ko téere bu ndaw boobu mu ne ma jël ko te lekk ko dina wex ci sa biir waaye dina neex ni lem ci sa gémmiñ noonu ma jël téere bi ci loxoob malaaka mi daldi ko lekk mu neex ci sama gémmiñ ni lem waaye bi ma ko wannee mu wex xat ci sama biir ginnaaw loolu ñu ne ma faw nga wax ci kàddu yàlla lu jëm ci réew yu bari xeet yu bari kàllaama yu bari ak buur yu bari